diggante Aby Ndour ak Pierre Goudiaby Atepa sagar mu ngi ci xeeñ li ko waral nag du leen lu dul waykat bi nga xam ne kenn dootu ko présenté Aby Ndour rek ci Youssouma Jigéen Ndour def na nag benn vidéo ci page Facebook am yàq lu mel ni xamee ki nga xam ni mooy architecte bi moom nag nee na mbirum caay-caay bu ne lal na ko waaye it lépp daal dina koy wax ngir rekk mën a def ak moom yëfu saay-saay waaye nag moom dafa bañ rek ba tëdd naaj ba ci vidéo siwaat ci appartement séminaire bi nga xam ne Pierre daal di na ko eh, dikk waaye nag bu ñu sukkandikoo eh, ci Pierre Atepa bi eh, ci li nga xam ne nag mooy ay tuuma moom nee na du ci àddu ndax dafa nekk loo xam ne rek tegwul fenn waaye nag dina jël ñeenti seetu may ko bi nduur moom doy na borom te ni ñu koy waxee wax bu egg dafa ko moom seetu ku ko xool xam ne sa bopp rek nga ci mën a gis la mu ca bëgg wax rek moom rek nag daal xam waaye nag Pierre Goudiaby Atepa jël na yëf yi jébbal ko avocat wam ngir rek mu daal di jébbal ab plainte ndax yaakaar na ni deram itam yàq nañ ko te it bëgg na ci ay leeral kon dossier bi eh, fu mu toll nii dañ koy rëbb rek ci yoon ah ndax tey yépp ci Sénégal foofu ne am ab yi eh, jàppal Pierre kon nag dinañu leen ko toppal ba xam fan la wànneen tam jiiti gëtëm